Bon, je suis fondateur de Banal Z. Banal Z est un groupe qui a commencé à rap. Depuis 1994, nous avons commencé à sur scène, de jazz radio. Bon, nous sommes venus à Haréti. Nous sommes venus à nous avons ce groupe. En 1998, nous avons des album. Après l'album de 1999, nous avons tourné en Espagne jógee si tournée bi ñëw def musique léegi moderne Baïra. rap def acapella di def musique tradi moderne Je joue instrument balafon percussion euh, guitare ak kora présente présenter musique reggae et euh, instrument yooyu après bu ñu si je commence à jouer Planet Café Just for You en 2004 après moi je départ je suis ñu Espagne am France am suis Angleterre si le groupe bi tase quoi Légui. bon man dañ rencontré des difficultés pour me recommencer le groupe mais je rak ni quoi ak suma beneen rak bi je groupe carrière reggae. Nous avons commencé relancer la musique reggae avons fait un concert 2017 27 mai 2017 Nous avons fait un concert le foyer Wahina Nimzat euh, foyer des jeunes après le 24 août 2017 nous avons fait un concert fële Just for You balaa muy après nous avons fait soir de galop. Nous avons animé le 30 avril le mois passé bon temps ñoo ngi defee concert di boxer concert comme concert bu le septembre bu waa Ansar euh, reggae organisé woon kii sax euh, Bekkaay jot na xam ñooñu quoi ñoo ñoo organisé woon concert bi invité ñu ñoo joué def suñu partition moo ñëpp apprécié concert bi quoi léegi ñu ngi jëm a relancer waat am na ñooy musiciens nga xam ne ñoo ngi disposé pour mu la liggéey ak ñun. comme boo xoolee ñoom Robert Lahoud Tuku ñoom Paul ñoom Ki, Lay Cuun ki Cisco ñoom ñëpp ñoom dañ di disposé pour liggéey ak nit ñu mun carrière carrière international côté reggae ñaari e single mois de mars lañu leen génne ñu commencé di promotion parce que boo demee si rajo nga ne leen génne naa euh, musique pour ñu dañ leen ne waa dinañ ko teg mais duñ ko teg léegi ñun dañu passé par whatsapp ku soxla musique bi danga ñuy jox sa numéro ñu yónnee la ko par whatsapp noonu la musique bi nañ ko vulgariser ñu bëri ñu yore ko moment bii ni ñu bëri jot nañu musique bi léegi beneen étape mooy dinañu commencé léegi jaar si rajo yi ak jaar si télé yi bu ñu invité ñu ñoo def animation euh, acoustique reggae bon mun nañ def acoustique rek mun nañ def musique tradi moderne mais musique tradi moderne dañ ko xaw a teg de côté pour le moment ñu def acoustique reggae. waaw Aldo li ma bëgg a laaj instant bi nii mooy euh, pourquoi ngeen jóge si rap choisir dem ci reggae bi lan loo pourquoi sa transition boobu quoi lan lan ban influence moo ko indi. bon loolu xëy tamit suñu suñu borom moo ko bëggee noonu. bon ñu nu ñu commencé bu ñu commencé si Rapam ñun bu mu nekkee xale doon nañ dem église te église boo fa demee de ba nga nekkee xale dañu jàngal woy bu ñuy woy bu ñu chantonné foofu yow da ngay jàngale woy en même temps quoi noonu la ñu commencé bu ñu commencé amee quelque douze ans treize ans ñu dugg si chorale yi noonu la ñu jàngee woy bon bu ñu demee ba commencé rap bi après ma gis nii amul benn nouveauté bu yenn rappeurs yi doon def. parce que dañ imité américain yi solo comme américain yi di def comme américain ma ne léegi ñun nañu indi style bu bees bi nga xam ne dinañu travailler suñu voix si indi ñu liggéey style a cappella ñu liggéeyee style a cappella bi ma gis ni lii mun nañu amal njëriñ ma ne léegi dañ ko liggéey de telle sorte que ku nekk ëllëg bu génnee si groupe bi dina mun a carrière carrière solo dina doon mun a doon musicien buy woy artiste musicien buy woy léegi si permettre ñëpp ñuy def a cappella ñu travail voix a cappella yi ba ñëpp ñu mokkal a cappella bi léegi ñëpp ñu ngi woy ñi nga xam ne nekkoon si groupe bi bëggeen parce que groupe dañu fi tegoon ay cinq vocalistes ak ay instrumentistes si ginnaaw noonu lañ defoon ça fait dañ defoon bu njëkk ba cinq vocalistes ak euh, trois instrumentistes si ginnaaw après ñoo def quatre vocalistes ak quatre instrumentistes si ginnaaw quatrième instrumentiste moo doon joué guitare par dafa doon aw di tamit noonu lañ defoon groupe bandos mais léegi léegi dellu nañu si style reggae bi reggae bi parce que dañu gis ni moom moo ëpp avenir waaw te munoo nekk si rap bi kon fa day am at bi nga xam ne benn âge bi nga xam ne da nga fay tolloo il faut nga bàyyi rap dugg si reggae bi waaw. Ah, léegi Alzo sama beneen question mooy on voit que au Sénégal reggae bi kenn joxu ko gëddam quoi donc euh, c'est quoi le problème quoi fond problème bi lan la. par exemple comme ni ñuy ni ni focaliser wo ci rap bi mu am ay émissions affaire on voit nettement que né reggae bi amul amul ben évolution wala amul ben ben kii bi ben ben ben benn visibilité bi donc lan mooy problème bi quoi mon question boobu la la bëgg laaj. boo xam nga fi reggae bi fii day amay sound système gaa ngi defee sound système organisateur sound système gaa ngi defee sound système légui beneen côté bi lu tax reggae bi mënul jóg fii parce que dañoo euh, catalogué déjà ñi nga xam ne def reggae ñëpp ne dañuy utiliser affaire yi de telle sorte que booy wax affaire reggae sax kenn du la faal du am sa jot. ça fait parents yi du ñu nangu seen doom yi di intéressé su lu mel noonu quoi boo encore deuxième euh, point bi mooy que ñuy def reggae bi euh, manquoo ñu quoi. par exemple bu ñu leen teree benn affaire bu ñu leen di xeex yéen fa ngeen manko pour mun a avancé ngeen doon yéen ñëpp benn benn bloc ngeen juboo yéen yëpp ngeen xool nan ngeen di avancer pour mun a imposer yéen li ngeen indi par exemple il faut bi rab bi doogee commencé fii par exemple man doon naa rab bi rab bi doogee commencé fi commencé am ampleur après gars doon saboté naan booy dañuy daanu rab affaire yooyu léegi pour rab bi mun am doole ñu gis jant bi mu génnee son sanam bi bul ma jooyloo après année bu stop 97 Black Mbooloo génnee alal après noonu la affaire bi avancé muy avancé paa yi commencé di jënd kaset yi maire di jënd ñu adhéré noonu la rapide bi am doole léegi musique bi dafa am message message baa ngi fii moom la ñu soxla nit dañu soxla message moment bii nii comme par exemple ñun. dañu ne xaalis ñu génne benn son ñu ne xaalis fi nga koy bàyyi xaalis moom loo ko xaalis fi nga koy bàyyi xaalis doo ko yóbbu maanaam dangaa juddoo fekk xaalis fii da ngay nga bàyyi xaalis fii kon doo ko yóbbaale kon booy def da def te yàlla tax boo dimbale nit dañ koy dimbale te yàlla tax doo ko dimbale pour pour que réew quoi message boobu sànni nañu ko mais son boobu foo dem gaa dañ ñu koy laaj ñun soxla nañu son xaalis soxla nañu son xaalis mais ñun dañu travailler beneen son bi reggae roots la moom tamit mom lañu ñu gënoon travailler pour mën ko mettre en valeur quoi mom côté international ñu ko bëggoon lancer mais bu ko gars ñom dañuy préférer son xaalis parce que dañuy dégg message bi Un message bi en wolof la dafa nek perceptible à presque tout le monde quoi fi ñëpp ñëpp presque dégg nañu olof ñëpp ñoo presque dégg olof fii Sénégal léegi message beneen woy bi moom dafa nekk si suñu làkk si mankaañ xam nga fii ñu bëri dégg ñu suñu làkk bi mais bu ñu bu ñuy sàndee message bi de telle sorte que ku ko dégg comprendre lañ la ñuy wax mais message day day dem day law te day permettre ñépp ñu mun a bëgg reggae parce que ne ndeke ñoom nii la nii la ñuy ootee kon ñii il faut ñu adhérer seen cause mais boo buggee ñëw du jéem a def comme jamaïcain bi bon jamaïcain bi am na réalité am Alpha Blondy bi mu jugee si reggae bi dafa def réalité ivoirienne imposé ko Tiken Jah ñoo imposé réalité ivoirienne ñun nañu imposé suñu réalité sénégalaise yi ñu mun a dem côté international parce que ñu bëri dañ mel ne côté international Sénégal am amul ñu koy représenté côté reggae léegi lu tax mais loolu lañu war a liggéey pour mun a di bouger musique reggae sénégalais sénégalais bi à l'étranger pour mun ko jaayi. boo léegi pour mun a jaay musique sénégalaise mooy bu reggae bi il faut ñu am suñu touche même bu doon euh, ligne de base sax am na ligne de base mais bu doon musique bi nga xam ne dafay doon euh, même si woy bi dina am euh, particularité bi nga xam ne si Sénégal lañ koy trouver pour mun a jaay musique bi ak message bi tamit message bi ça compte

mais je surtout dama bëgg a ci affaire c'est-à-dire euh, affaire boo benn affaire yow yaa koy valoriser valoriser bu ko c'est parce que les yi nga xam ne ñooy wax naan ñoom ñooy rasta wala parce que comme moom ni mu il faut déjà que musique musique reggae peut-être fii Sénégal peut-être je sais pas yow di nga xam li may wax wala do xam mais euh, c'est la musique actuellement qui roule qui marche mieux ci aduna bi moo ëpp festival ci aduna bi ma wax la benn affaire gis nga rasse yi ngay gis nii ku fekk bu fekkee ne def nga tuuti ci affaire panafricanisme ak lépp daal lépp doole boobu noonu xeex boobu noonu ci ñoom la commencé ay ñoom Marcus Garvey avec yooyu noonu yëpp ngay dëgg la ay nitu dëgg la ay nitu dëgg lañu ay nit yel ay nit lañu li nga ay nit ay nit lañu ñi nga xam ne Afrique moo leen tax jóg der bu ñuul nu ñu gisee ni euh, der bu ñuul bi der bu ñuul bi nuñ koy tuutalee ci àdduna bi xam money can't save money can't save money can't save you He do me the day upon the way

maneirinhos de Jolê, da terra de Tocuiubalê. Ales vinga quem vai, Ales mumulocô, Ales vinga quem vai, Ales Tocuiubu, Ales vinga quem vai, Ales mumulocô, Ales vinga quem vai, Ales Amulolo. báyìí wálé lóko yòókù. Money can save, money can save, money can save you, my brother. The judgment they take on the way. Give thanks and praise to Almighty One God, Safara. Ah, ah, ah, yes, sir. yéen a ngi ci Guédiawaye Infos seeti artiste ak euh, Alzo et son groupe ñu leen jox dig daje bu beneen yoon si Guédiawaye Infos point com bay prési moo fi nekkoon jaajëf.